mbokki seetaan ñu ngi toog ak Doudou Sathie Doudou nekk jeune ci dëkk bi waaye mm, am fi am fi am fi baat lool li ko waral du lenn lul taxawaayam ci dëkk bi xam bu baax tamit ki nga xamante ni moom mooy Adji Sarr ni ko chef de village waxee dëkk bi ñëpp ay mbokk lañ Doudou nuyu nañ la. Euh, fay naa la sëñ bi. Eh, di nuyu waa Leral TV yëpp di nuyu sénégalais yëpp eh, di am mbégte tamit eh, wax ak yéen par rapport ak li nga xamante ne xew na am na fi voilà donc li xew nag ñu ñëpp ñoo ko déggandoo te yaakaar naa ni dara bu amee ku ci nekk war nga mën a toog xalaat bi xam exactement mbir bi naka la demee mais xale bi ñuy wax aji Sarr donc euh, xam naa ko parce que bi may nekk président élève étudiant euh, Dionda euh, amoon naa ay occasion di ñëw école ci ay manifestation donc yaakaar naa ni tamit bi ma ko xamee ba léegi donc li ñu sàkk mooy jox na ma cër jox na ma respect fu ma gis dina ma nuyu te depuis lors aussi vraiment Euh, am nañ ay relation yoo xamante ne du ay relation yu bon comme ni ko ñenn yi di waxee donc euh, yaakaar naa ne daal bon xale la boo xamante ne comme ni ko ñëpp waxee chef de village imam loolu daal lañ xam ci moom. Mhm. Euh, nga nekk jeune xamanteek moom bu baax en tant que jeune moom it problème bi dal ci kawam mu ñu ni nga dégg ñu ni Ousmane Sonko aji nee na Ousmane Sonko daf ko violé. lan la la defee waa en tant que jeune. bon bi ma ko déggee vraiment euh, metti na ma lool ñaawlu naa ko parce que affaire viol dafa nekk loo xamante ne dafa xaw a doy waar donc euh, bi ma ko déggee aussi vraiment metti na ma ndax xam naa ne aji suñu rakk la xam naa ne aussi ki nga xamante ne moom la accusé viol nekk na koo xamante ne tamit. voilà day daa bëgg a doon président euh, ëllëg donc mu doon loo xamante ne tamit affaire bi bu bëree coow walla aji bu siwee buñ ko ñeneen yi ko xamee donc yaakaar naa ne problème bi moo tax ñu xam ko parce que yàgg naa nekk fii jàngee Maya ñëw Djirnda jàngee fii ba quatrième dem dakaar ci ñu bëri xamuñ ko dégguñ ko mais affaire bi bu yëgsee fii rek. parce que ki nga xamante ne moom la ko seqal moo nekk une personalité dans le pays yaakaar naa ne loolu moo gën a indi coow li mais naqarlu nañ ko parce que li xew nii yéenewuñ ko kenn ba tax na aussi dañuy ñaan yàlla rek vraiment mu def ci ndox mu sedd. yow nan nan nan nga accueillir nouvelle bi bi nga ko déggee. bon bi ma ko déggee vraiment euh, nekk na lu ma metti woon. te doon aussi vraiment surprise parce que am na loo xamante ne tamit euh, képp ku ko dégg day doon surprise ci yow parce que parfois aussi da ngay dund ak nit loo xamante ne vraiment euh, yaakaaroo woon ni dina dem ba euh, nekk ci yenn circonstances yi donc circonstances yi nag comme ni ko ñëpp waxee bon comme ñu dañ nekk ci dëkk boo xamante ne. dañoo respecter suñuy valeur ndax nit boo nekkee ci dëkk di jàng ba jàngatoo il faut nga dem uti yaakaar naa ne nag xale bi ci yoon uti boobu ci la nekk ba daje ak ki nga xamante ne mooy le leader de PASTEF Ousmane Sonko. Mhm. nga xam ko bu baax. dénk nañ paa liñ fi wax yëpp. yan relation ngeen amoon ak aji yéen en tant que jeune ci dëkk bi. bon en tant que jeune bon dañ amoon ay relation de de fraternité. voilà donc euh, comme ay comme sama sœur bi nga xamante ne moo nekk ci kër ga ñu bokk ndey ak baay parce que nit aussi bon bu ñëwee ci dëkk jàng si nga doon étudiants tamit di jàng am na yoo xamante ne am ngeen ay relation yoo xamante day dem ci li nga xamante ne mooy affaire wu njàng bi mooy affaire wu éducation parce que ñun aussi dañ fi nekk nekk fi pour à chaque fois ñuy saytu élèves yi ci seen njàng pour ñu mën a avancer pour ñu mën a évoluer euh, ñi nga xamante ne àddu nañ ci moom wax lu ñaaw parce que parce que ñun dañ toog gis ay audio di circuler gis ay vidéo di circuler lu nekk ñu wax ko te ñi ko wax yëpp ñu ci bëri maîtriser wuñ ko parce que euh, dafa am loo xamante ne comme ni ko chef waxee nit ki bu dee sa mbokk la doo ko waxee noonu comme aji suñu mbokk la dañ koy défendre jusqu'à la preuve du contraire te euh, ñi nga xamante ne ñoo ci wax am na ñoo xamante ne xam nañ leen ñeneen yi xamuñ leen am na ñoo xamante ne tontu nañ ci parce que dafa am ku wax ba saaga ñoomin kay man loolu moo a gën a merloo parce que ñun am nañ loo xamante ne moom lañ xam ci ñun loolu la ñu yaayee muy ay valeur yu ñuy incarné gëm suñu bopp nag ku nekk nangu liggéey fu la yàlla teg nga dem foofu liggéey te yàlla rek tax am koo xamante ne wax ca ni wax na ci ojo boo xamante ne mu ngi toog ba France ne mooy moo xam aji mooy wax sénégalais yi kan mooy aji wax ba wax ci ñoomin kay loo xamante ne ak fi ñu dëkk jànguñu voilà amuñu xamuñu li xew ti Tivaouane bi mais le monde est village planétaire Seif wax na ko sànq lépp lu xew Dakar à la même minute dañ koy yëg parce que àdduna moo doxe noonu te wax naa ko ko ci ojo tontu naa ko ne li nga wax du dëgg parce que xamoo ñoomin te temps bi buñ ko mayoon ma defal ko list boo xamante ne ay ñoomin lañ ñoo xamante ne ñu ngi ci bureau yi ñoo xamante ne ñu ngi un peu partout dans les sphères de l'État di liggéey ci ci ci ci ci réew mi ci administration te yaakaar naa ne lien bi am entre ñu séeréer yi ak joolaa yi histoire Aguène ak Diambogne war na mën a tax ñu jéem a rafetal ni ñuy waxee ci problème bi nga xamante ne moo am ngir consolider. consolider lien lien yooyu parce que dañoo bokk. dama lay bàyyi nga tàggatoo mais aussi nga lancer un appel à ñi nga xamante ni ñu ngi wax ci problème bi yëpp ak ñi nga xamante ni ñu ngi seet. bon appel bi may lancer mooy di wax ak jeunesse bi parce que yaakaar naa ne li gën a yëkkati coow bi pratiquement ci jeunesse bi la jóge mu nekk dakaar mu nekk un peu partout dans le monde. te yaakaar naa ne euh, ñun jeunes yi ñoo war a defar réew mi ñoo ko war liggéey am na loo xamante ne bu xewee ña ko seq ñoo wax ndax ajimo moo le leader de Pastef Ousmane Sonko yow xamoo man xawma ñoom ñaar yépp a xam ak yàlla donc yaakaar naa ne ku ciy wax dangay wax euh, ci li nga xamante ne maîtriser nga ko walla xam nga ko ñu xale bu jigéen bi xam nañ ko mën nañ wax ci moom li nga xamante ne xew na nañ ko jël avec responsabilité ñu bàyyi vraiment justice def liggéeyam ndax problème bi euh, du problème mu ethnie du problème politique problème mu ñaari citoyen sénégalais lañ te ku nekk ci ñoom dangaa am ay droit ci réew mi muy aji muy le leader de Pastef Ousmane Sonko te am nañ yaakaar ci justice bi donc may wax jeunesse bi ñu gën a bàyyi xel bàyyi vraiment li nga xamante ne ñu ngi koy wax ci wax ju ñaaw te yaakaar naa ne jaru ko problème la boo xamante ne day jàll ñu dem ci leneen mm-hmm. moo tax ku ciy wax na nga ci wax lu rafet man loolu laa bëggoon a wax. dégg nga ni mu ko waxee noonu problème bi nañ ko jël avec responsabilité ce n'est ni un problème d'état ni un problème politique ni un problème d'ethnie mais problème la entre ñaari nit ñaari doomu sénégalais ñaari citoyen donc nañu bàyyi justice def liggéeyam dégg ngeen ni mu ko waxee noonu waaye dégg ngeen aussi euh, témoignage yi nga xamante ne def na ko ci Adji Sarr en tant que jeune nekk ak moom jàngandoo moom wala boog nekk ak moom ci koñ bi euh, ci ci dëkk bi gis ko muy évoluer gis relation yi nga xamante ne am na ko ak yeneen moroomi yu jeune yi dégg nañ yeneen témoignage yëpp euh, yaakaar naa ni lii rek doy na ci seede ndax buñ ne ndax nit baax na dañ naan mbokk yaa ko wax